moo ko def mu tudde woon ko mutahirul qulub wa mutalliul asraari wal xuyub ki ko sarxa nag di kenn ci ak njabootam di sëtam di bay Baye Barham eh, mu tudde woon ko moom shifaawul uyub ñu woon ci faslu faslun fii dammi tajassusi waxoon naa ci njëlbeen man la turu téere bi rek moo lay xamal basiraab góor gi ñoom mag ñi toujours boo gisee seen dox bi yomboon te am barke am njeexit dañuy jiital la war a jiitu tekke la ci war a tew téere mi nga tuddee laabal xol ba pare wuññil la mbóot yi ndeke xol bu laabut denc yàlla yi doo ci mën xam dara watruk tajassusan ala al uyubi nahaaka anhu aalimul xuyubi maam alaaji mu ne radiallahu anhu watruk na nga bàyyi tajassusan yëddu yërndu lëñbët gëstu alal uyub ci sikki jaami yàlla nahaaka aaya na la anu ci loolu aalimul xuyub yàlla mi xam yi fàddu yi fàddu fa qaala naahiyan wala tajassasu fattabiu maa qaalahu laa tanjasu maama laaji moo ne fa qaala wax na moom borom bi ci quran naahiyan mbir moom mu daji tere wala tajassasu bu leen di rajo bu di gëstu mbir nit ñi moom laay mën a fattabi'u topp leen maa qaalahu la yàlla wax na ko ñoo ko góor gi topp gi lan la jural mooy mën a mu dëggal ñu ne laa tanjasu du ngeen taqma du ngeen sobew ñaari xaaj la najaasa am na xissiya niki ku jéggi kabina loolu sobe suñ teg bët la najaasa maanawiya mooy ku yàqu gis-gisam yàqu yëg-yëgam yàqu wa in turid islaaha aybin nafsika fal tatrukan tajassusan muntasikan maama laaj mu ne su fekkee danga bëgg yeewanal sa aybi bopp na nga bàyyi tajassus fal tatrukan tajassusan mooy raju muntasikan mbir moom nga da jaamu yàlla Cheikh Baye Charix xam na sët ci góor gi mi ngi wax ci saram bi ne xadis bi yun salaa sallam jàngaleen idarat an taskura uyuba xayrika fazkur uyuba nafsika soo demee bëgg a dugg ci manki manki jaam yàlla rek dawalal sa bët say manki manki bala moo jeex sa dund gi jeex mu wax moom Cheikh Baye ci sarax bi mu ne feebar bii saafaraam wa shifaauha Euh, mooy nit ki di di lañ bet boppam rek boo dee boo demee ba seexlu sa bopp rek bëgg mu set da nga ittewoo ak sangam da nga ittewoo ak laabalam su ko defee mu ne loolu mooy saafara nit def te jës suus wala bunt bi jeexee maama laaj mi ngi ci beneen faslu mooy faslun fi tahrimil xiibati yaa ayyuhal muxtaabu lil يا آكل اللحم من الإخوان فاجتنبا ما حرم القهار الواحد المهيمن الجبار يا المغتاب يومي خم جو الإنسان يلدم آدم يا آكل اللحم يومي لك يب من الإخوان لا يجلي جنيو أيوب أحدكم أن يأكل اللحم أقي ميتا فكريتموه واتقوا الله moom alaaji mu ne na nga wattandiku mu nga xaramal la aaye na ko alqahaaru yàlla may notaakon alwaxidu kay kenn almuhayminu ka daji jàppandal mbiri jaam yi aljabbaar ka daji mbëru waalam bi kulla man taxtaabuhu kad xoka kulluhu lahu tahabuhu amalaaji mu ne xanaa nit soo waxee ci moom ay safaan yaa ngi koy sippil ay bàkkaaram di ko sëf say tiyaabo moo tax kenn ci saalixuuna yi nee na man su ma demee ba nar a jëw jëw sama ndey ak sama baay moom moo gënal comme sama tiyaabee la ñu xuuf di ko jox ka may jëw naa jëw sama yaay jëw sama baay ñu jël tiyaabee jox sama yaay sama baay moom a gënal ma ma liggéey ba pare di ko jox am ma sàmba wala am ma demba am na ko am fulla tax mu ne waalam na nga xam benn kon laman tax taxtaabu képp koo xam ne yaa ngi koy jëw kaddu ko sa coono ku lu lépp coono ba taxaboo yaa ngi may loo ñu lii la maam alaaji wax radiallahu anhu mattaana bi barakaati eh, mu tuddee jéego mooy yaakila laxmi yónni salaa sallam keroog ba mu rañaane romb na nit ñoo xam ne dañoo ay wey yoo xam ne wey weyu përëb ñuy xosi seen cëlmaay ak seen dënn yi mu ne waa jibril lii moom métti na di ñu la man xawulaa yaa jibrilu قال أم الذين يأكل يأكلون اللحوم الناس ويقعون في أعراض يقمن قسجام يالي أي بلن كذا مسل لكي ليلة وقت سرحبي مما لاجمون وطائب الغيبة في الجنان يدخل آخرا بلا امتنان من وطائب الغيبة كوخ مدفو يتوب كي باكار بجو yadxulu dana dugg fil janaani ci aljanna yi aaxiral waaye muy muy mujjee dugg nag bilam tinaani ab jiw ko su war a dem aljanna ñëppay dugg mooy mujjee jël tikitam pour dugg yadxulu aaxiran bilam tinaan ci loolu ak ñaxtu kooku amul lenn lu muy wax lu dul rek ne xam na xaw tuuti ndëggoom rëcc ko wa man abat tawbata kaana awalan man yadxulu naara fasaara mukbalan mama laa ji mu ne kiit waaye tuub nekk ci baax ba dem aljanna mu ne mooy mujjee dugg ki nekkoon ci jëw deyaale ko nag mu ne bu ñuy dem safara mooy njëkk a dem bu dem safara mooy mujj mooy njëkk a mooy njëkk man aba ka bañ na mu tawbata tuub kaana nekk na awwalan ci njëlbeen man yadxulu naara su defee kon kooku mooy kii njëkk tabbi safara fa saara mu mujj mokk balan dikuñ jéng alkabaalatu ñu ko waa léegi wax nga may xiibatu danse bi ci nekk ci ba nga tuubi ak ba nga tuubut yëpp lan mooy xiiba lan mooy jëw wa xadduha an yuzkara al insaanu bi wasfihi wa xayru wa mu ne wax xadduha li ma lay leeralal lan muy xiibut ab dayalam an yuskara tuddef al insaanu bi wasfi ci melo mooy nga tudd nit melokaan wax ne moo mel gaa mee nekku fi waxee rosa bu ko mënut maam laaji buxtaan lay tudd kon alxiibatu mooy wax safaani nit donte dëgg la waaye ci gannaaw buxtaan nag mooy defu nga ñëw sosal ko loolu mooy buxtaan maam laaji tëjee buntu bi ne na najjinaa ya rabbi min isyaani wa kulli ma yufdi ila nisyaani wa jinaa nag ñu musal yaa rabbi min isyaanin ci mboolem xeeti mooy ak lépp luy xëcc nit ko ci fàtte nit bu bëree bàkkaar rek dafa yomba fàtte waykat ba waxoon ne mu xel mu leer bàkkaar a koy lëndëmal inaaratul aqli magsuufun bi tabi hawan مام الحاجي جيغال نتي بونتو بوبو مو دوجو فصل في منع الكذب وخنا لني تيري بي مينغو تودي دنگا دي مطهر القلوب مبولم جيكو يي مونيو داولو كو جي موتي رك نيك سا ولي جامانو اوت سيك والكذبت والكذبت ركنه ان لم تريد من الى لعنه لك تريد لانه جل وعز لعن الكاذبين فعلما ما بينا قال البشير أعظم الخطايا لسان كذاب من البرايا ما ملاج موني والكذب النار أتركنه ننكو باي إن لم ترد فكين نمو لعنة أم رب من الإله تكيف الله من الإله فقام ترد دلم ورطس لك جمشيو موني واخ لدود دغ داي ورا ربم يالا لا يجلي جنجو ألا لعنة الله على الكاذبين laay jëlee junj liannahu ndax moom jàlla màgg na moom yàlla wa not na ci nguuram laana rabbuna alkaadibiina fa alama na xam maa bayyana la la na ma ko wax na albasiru yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yonentu ne na azamul xataaya gën li gën a màgg ci ñaawteef yi li daanu kada mooy làmminu naraakoon minal baraaya ci mbindee fi mu ne lii lay wax ci xadis kon ay rëbbang ci yu bëri boo yi wax nañ ci lu nekk faslun fi dammil xasad kañaan lay jàngale kañaan nag ñaari xaaj kañaan goo xam ne waa ji da ko añaanee rek li ko yàlla defal boo doon sa sago mu ñàkk ko nërmelu loolu musibal yàlla nañ ci yàlla musal ak kañaan ko xamni da fay ne ci lu bax nga ah, ki day wax deug yalla kañaan ak ñe ko la pour jëm ko roy ah, bob mom ayut mom mu ne tubtilu ma qad tamalu, la anta ahmaqul wara wa ajhalu maam alaaji mu ne ya hasiran yawmi mi aji anyan tubtilu ko xamni kami dafa yak ma qad ta'malu lepp loo doon mu lante lante ahmaqul wara nit ñi yaa ci gëna dof wajalu ya ci gëna a mom laaji alaaji ne nit su añaanee xamal ne ndof ci mom la yem réer ci mom la yem ndax yalla moy séddale ni la programme ngeen ko du fi am ko boor bu toll yalla kat na ba xereñam ki mu jox li ki mu jox la ki mu jox la ngeen ko ni nga doxalee du nonu ni nga baaxul kañaan moy yalla ni nga baaxul kurzi yalla la mom laaji kuy dof ak kuy añaan kooku añaan moo ci moo ci jiitu lu tax li anna ma amiltahu kal xatabi jucila fi nnaari fa xaf min atabin rawayu rafet radiallahu anhu mu ne li nga doon jëf ci lu baax day mel ni mat muñ dugal ci biir safara kon fa xaf na nga ragal min atabin ci alkande yonent mu ne kañaan dafay lekk jëf yu baax yi ci yow ni safara ni matt di lekk eh, ni ni safara di lekke matt kon moo lay xamal nit ki bu nekkee ci kañaan li mu yendoo def di ko fanaan def yëpp day dem haba mansura wa qaala fi lxadisi inna alxaasida aduw an umil ilaahi almaajidu mamalaaji mu ne wa qaala wax na fi lxadisi inna alxaasida nako aji añaan عدو أن أمي إلهي موي نون بخيول يالي المايا دي الله مانا جيتاد موي لي يالي دي جوخي داي ميني موم نيكو يالا جوخي أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضل في النساء وقال في الحسد كاد أن كاد أيضا وقال في الحسد كاد أيضا أن يغلب القدر زدنا فايدا ماما لاجي موني موني واخنا واخنا سي moom yunus salaa salaam ne dafay mel ni dafay notanteeg dogalab yàlla zidna yàlla ñu dolli faydan faydu mune ne añaan dafa mel ni yàlla day def ba pare nga ñëw ne ko lii watul nekk fii kii ma waroon am lii kaa ma waroon am lale mu la añaan di jëf عنه في حديث المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا هو الذي أدخل في النيران خابيل حسن أقاء الثاني amma laaji mu ne li ma wana ci kañaan so je bëggee xam lu leer lu yaatu dama li remutéere xadis yi Cheikh ibrahim wax na ci akam mom ma laaji nana mus am téré bu bes te liiru ko ba jeex te su su ko liiree du ko fàtteeti na ko ci moom alaaji mu ne maktabam bi li ci ne yépp du téré ay wala jek jekam téré bo ja gis yër bam jeex te lu mu ko si diir do doo dootoon koy fatte lolou may yalla yalla moo ko mayoon moo ba topé mindam di gis ay da nga xamné euh, fadwa muftin la bi malil kalimati min maanin fa u na nga nafar lima la wax nang ko yeri ci téere hadisi sallallahu salla alayhi rabbuna moo ci adi mu ne xadis la wax ci la mo fa nek o mom alladi mooy la nga xam ne adxala moo dugaloon xaabiila fi naari xaasin bakkaar bi njëkk am ñetti bakkaar yi njëkk judd xam ne ñooy ndey bakkaar yi ñett la xër rëy kañaan ñooy bakkaar njëkk am ci jamono xir moo daloon yunte laadam garab yëpp lekkal ba mu des gële ñoo ko beeda boo ci lekkee dana gën a baax moom lu baax la loon uti de duut xir ak bakkan xir ak leer la ab yonent du def safaan mu xir dem lekk garab ga lam doon mos ca keppaar ak yàlla ga neex na neex goo xam ne xam na ne fii bu fi yàgg dana baax ci moom moo tax iblis fa la ko jaara hal adulluka ala siratil xuldi wa mulkin laa yabla du nguur ak bakkan nguur ak ngi nit yàlla yi la sax ci keppaar yàlla gi di ko sabal bànneex booba foofu la ko jaan garab gi boo ci lekkee doo doo jug ci euh, kon xër rëy ma daloon iblis kaay sujjóot parewuma ko kañaan ma daloon xaabil ci mbokkam ma ñu bokk benn benn benn geño waaye gi nga fi mujjee da nga de mu rey mbokkam ma moo tax mu ne moo fi mbokkam ma haabil la woon ak su ko defee nit nag su bëggee noppalu ci kañaan charih cheikh Baye mu ne mooy an yactaqid an al arzaq bi yadillahi wa an daar ay aydan bi mashiati mu ne boo demee ba xam ne wërsëg yàllaa koy joxe euh, dogal yi ci coobareem lay lay dépendre mu ne ñaari yi boo ko feebar ak xasad dañ ci daal di wax na dëgg faslun fi zammil kibri wal kibru wala wal kibra ñu nasab ci listiqaal wal kibru nga rafaa ci ibtidaa wal kibra fajtanibu yaa man raama alqurba min dil arsi wal maraama maama laaji ne wal kibru rëy fajta nanga ko wattandiku yaa raama yow mi sàkku alqurba jege min dil wal maraama ak boo bëggee jot say càkkutéef fexe ba nekk nit ku suufe rëy yu bàyyee ko yàlla mbalaanam la nee na ku ma ca fekk danaa ko ñoo dend ak yow daane la safara kon alkibriyaa wa ridaa yi la waxoon lala buur nag boo ca jiitu buur tamit baax see ci suuf nga jëm boo defee mu ne way way yuxrimu almara min adduquli fi jannati ilahi fi lmaquli maama laaji mu ne ba tey way yaxrimu day xañ way yaxrimu day xañ moom rëy almara ascam min adduquli fi jannatil ilahi fi lmaquli ci li ñu wax wa yamnawul fahama bila xilaafin mooy nit ki bu rëyee yàlla du ko may dégg alquran a ko wax mu ne sama ay yii danaa koy jalar bi walis ñi xam ne dañuy rëy rëylu kon maam alaaji mu ne rëy day tax nit ki du am faham nit ki su oyofee rek yàlla oyofal ko yu diis yëpp mu mën ko xam-xam rafet rafet rafet jekk ko yal nañ ko yàlla defal maama laaj mu ne fal taj ni yenn na nga witti yàq yow sama mbokk xitaab bi suma meññeet mu ne garab gi ma la sëppal bu ko romb de daga ci doomi nga lekk ci soo ko defee rek sa jàngoro xol dana da di wér wa annahu li wasfatil jalali jalla wa azza saahibil kamali maama laaj mu ne mu ne mu rëy melokaanu yàlla la yàlla mi boromam mat mu ne nit warta jéem di ci ut dara le dégg de su ko defee rëy alquran waxoon na saasrifu an ayaati alladina yatakabbaruuna fi l ardi bi xeer alxaqi sama kawtéef yi ñii rëy rëylu daf ca kaw kaw kaw duñ dara kon rëy baaxut dafay tax xol bi du leer dafay tax yu bëree bari bëri nekk sa gàllankoor mu nettali fi ci biir sarxa bi waxi Cheikh Ibrahima rëy yi koy waral bàyyi mu ne rëy yi koy waral fal kibru imma imma bi ulumin aw nasab aw zumarin aw fi'li taati nasab man cee rul ëdëb ba mu ne xam-xam dana ko waral di ci bakku amu njeriñ askan mala gari mam dana dana wal bakkan mbolo mo dar aw zumar wala mbolo dar la nga yakal li au bind yaa ci gën aw fi'li wala top taqoo jëf nek jam ko tam yalla bu mana bu bu jamu yalla yalla natula nga gis jaamu yàlla nga wax xeebee ko ñi alal bàyyi mu ne yii ñoo yii jur rëy xam-xam askan mbooloo topp yàlla alal yii bu ci yàlla bokkul bàyyi la ko rek li nga bàkku loola jeex maam alaaji mi ngi dugg ci nay faslun fi dammil buqli waalam bi anna saahibal buqli ajal laa yadxulul jannata xaaful laa ajal mamalaay mu ne waalam na nga xam benn saaxibal buxl naka borom ak nay ajal waaw waaw laa yadxulul jannat ku nay du dugal jànn xaafu allah yàlla jàlla màgganam kama xaka rabbul ibadil baari fi surati leyli quraan yaa qaari mu ne yàlla mi borom jaam yi yett ñëpp bind ñëpp wax na ko ci suratu leyli waa demay ñaari ataaya da de waa baxila wasax وكذب بالحسنى فصن يسر اولي العسرى منك قمنا دفن ناي اودي لا يلا رك كوكو القران غن لم تي فصن يسره للعسرى ما ولاي مي داما جان سوره الليل داما فك نفا يلا تكو ناي مني تيميت مني حديث بلاي جانغالي يونت مني ناي اك غراب لا ما ما صاح سفرة بير سفارا بانكاسي ادونا boo ca nekkee jàpp tëë ba rek mu yóbbu ca datu garab ga mooy tabe garab la bu sax ci aljanna banqaas yu fi ci àdduna boo jàppee ci banqaas yi du yàgg rek nga àgg ca datu garab ga moom la wax qiila inna albuxla fi jahannama shajaratun axsaanuha unalama mu ne wa qiila waxeef na inna albuxla naka nay shajaratun garab la fi jahannama axsaanuha banqaas yi garab ga huna mi fi ci àdduna yàlla man xamal li kama saqaau fi ljanaani sajara qaadal ilayha al asqiyaau alxiyara mooy ni nga xam ba tey tabe garab la gu ne ci aljanna yàlla ommat jëmee ca way tabe ya alxiyara ñi ay tànneef wa qiila law xajja baxiirun alfa aam laa yadxulul jannata an xayril anaam maama laa ji mu ne waxeef na ne ku nay bu aji junni at du ko tere dugal jàng du ko tax dugal jàng junni at suko ajon at mu nga aji bamuy junni yon, da nga nit ku nay pare wo jeriñ ben jaam yalla walaay mu la yaqulul jannat man wax ji reyna way an khair an ñingo ñingo jere ci gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam wa qala man xajja ajal wa atamara khalifatu tijani ani umara maa li baqilin rahmatu rahmani siwa adab wilaay wan nirani mamalaaji wax naa leen ci dës si passé dafa fonk Seydi Mawlaay Cheikh Omar Fouti da fonk lool ndax ci ay sëriñam la bokk mu ne wa wax na man xajja góor gi nga xam ne ajana makka ajal waaw waaw waatamaru umrana xalifatu cheikhina tijaani te mooy Seydina Omarul Fouti ne maali baqilin ñeelut aji nay rahmatu rahmaani mu ne ku nay du dajeg yërmande yàlla mukk la aduna xanaa dumay yàlla lay dajeeg ak ak da nga ak safaraam kon doomu aadama dafa war a am njëriñ dimbalante ak jaam yàlla yi waaye mu ne ku nay Cheikh Omar Fouti wax na ne laa yanaalul baqiilu rahmatallaahi balil azaba wal jawalaana fi naari yowma alqiyaamati lil waxi Seydi Cheikh Omar Fouti la moom laa ji daal koy way dugal ko ci biir xasida bi mu des buntu faslun fii man il xirsi ومخرج من جنة الإلاء الحز فأذره ولا تباهي لذاك فاضل أن تكون حارسا لا تسمع عن قول العدو خارسا هو محرم لشخص لابس ما نال والمقصود لا تلابس من ومخرج أجي جن لم جال جانا يالا جال رزقر أغطنك ولا تباهي دمري موي بوكو بوكو mu ne bul xër li daaka faxsar na nga wattandiku an takun nga nekk xaarisan laa taxarisan fal xirisu laysa bi zairin bi risq bal yashqal xarisu wa yataabu laa tasa mun bul déglu xawlal adi waxi noon ba xaarisan mbir moom mu daji nar seytaane lay wax booy joxe mooy ne ngay ñàkk di ragaloo ñàkk mu ne bul ko topp mukk bul dégg waxam ja loo am da da dimbalante jaam jaamu yàlla yi wa munqir muharrimun euh, wala muharramun luñ araamal la li shaxsin ñeel jëmm laa bis nga daji oddoo ko de maa la xam am na mu euh, ko su wal maqsuud lay jubluwaay bi daal mooy laatu laa bisi bul jaxasoo moom bul fexe ba mooy xër li nga am sax daf la koy xañ da ngay dajale rek alladi jamaa maalan wa addadahu يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كون دجال على تغوت بريل جوغي تغوت نيول لولو ننكو باي خل جوغي دوار النك دجال دوار الأقام فصل في ذم الرياء لا تقصد الرياء يا ذا العامل إن لم تريد بطلانه يا غافل لأن من خلق كل الخلق لا يقبل الرياء din lil xaq maam alaaji mu bul jublu mukk bul jublu mukk ariyaa ñesali adal amal yow miy jëf mu ne jëf ne ko yàlla moom jëf bala moo romb yàlla dafay jaar ci ñetti dafay jaar ci ñetti place yoo xam ne dañu fële fa lañ koy xoolee yow yaay kan man la rakk man la ay man la ay rakk wala man la ay ay ay koor ah kan man la doon or ku la julli diw sàngam kum ko doon defal yàlla wala ba da bëggoon ko ko yéem wala nit ñi nu mu ko doon defee dañ koy laaj ku ko jëf kum ko jëfal nu ko jëfee ñett yi su fa rek mu jàll nekk amalan maqbulan yal na yàlla may ñu loolu mu ne soo bëggul yàq sa jëf bu bu ci boole kenn ndax doomu aadama amul fay nit amul aljanna amul safara te buy dee buy buy buy dee rek nga xam ne mu buy buy dee rek mu jeex kon nit amul safara amul aljanna nag amul tiyaaba amul bakkaar ñeenti yàllaa ko moom amul ku la mën a bëgg ba sëq ay tiyaaba naan kaay ma yokkal la amul ku la mën a mere ba dem jël mbuus ak bakkaar na xaar xaar ñu xëppala ko nit amul tiyaabo nit amul bakkaar amul aljanna amul safara yi yàllaay borom kon nag boo jëf jëfalal kii moom tiyaaba moom bakkaar moom aljanna moom safara bu fekkee am nga am nga xel لان من قلق كل القلق من يالا ما بيني من ديف لا يقبل الرياء دو نانغ موكو ديف جوغ بوكو كينن دين نانغ اومات للحق نيل دغ موي نانغ اومات دغ سو دافاي ا آه، بونتو بيتي ديس باتاي ميغي جانغالي سمعتو مو مام الله رضي الله عنه من وهكذا نكنو بلا سمعتو دغتال ben def diko deggele wala keneen def nga diko déglu ñaar yëpp day day day yóbbaale sumaatu fii ma xaaloo ci lañ wax waaye moom sumaa wabaalun alkande la musiba la li yuhibbu a ñeel ka dana ma ko sopp loolu mooy faslun fi dami sumaati faslun fi mani tadwil al amal guddal say mébét waadar aqi tadwilaka al amala fa yanu yusawifu al amal moom alaaji mu ne nga wattandiku guddal say mébét ndax daf lay xarlo daf lay al amal say jëf yu bari taswif moy naqar ba ngon naqar ba guddi naqar ba suba naqar ba nangam xar xaar yu ci ngay nek ba sa dund gi jeex kuñ dur xar da nga de waro xare mu ne ñaareel bu say mébét guddee rek lu bari dang koy pousse na naqaar ba daf sangam julli jot nga naqar ba ci kanam ci naqar ba ci kanam naqar naqar ci ngay nek ba sa dund gi jeex mu ne kon taswif baaxut faslun fi man'i suil xuluq muy jikko yu ñaaw lay aaye idaa ratabna soo bëggee ujrat saami tiyaa maanaam yoolab koor min xeyri ma saw min ta doo or wala xeyamba de ta doo naafila mu ne soo bëggee am tiyaay bay koor tey óoro am tiyaay bay ko naafila ci weeru koor teew naafila mu ne soo ko bëggee fexeel na sa jikko rafet gars yi bu ñu naafilaa koor ba tiyaay bu ñu ci yalla xuufal la ci ñoo doon naafila di fanaane julli ba bat set li ñu am ci tiyaay bo yàlla daf leen koy bàyyee pare yow xuufal la ci ndax yàlla mën ngaa def mu bay rës jëf ba pare jëf jooju mu jël may ko keneen ndax moom la mu yore du jeex mën a sëq di joxe ndeyjoor rek ci am mooy ndeke jikko ju rafet boo ja nekkee dañ lay fay fayab ci koor dañ lay fay fayab ku nekk naafila lii la wax wa nayli ma aradta fi daarayni fa xassinanna alxuluqa duna may nin ak boo bëggee am li nga bëgg fii ci àdduna ak fële ci al axira mu ne na nga rafetal sa jikko duna may nin kama xaka nabiyuna almuxtaaru euh, qutbul wara faddalahu almuxtaaru mu ne kama xaka ni ko la ko nettalee salaam li xadis yonantu la نبينا المختار يخانا موي سانغي مينديفي فضله تاكو تان تي كو مينديفي المختار يالا مي تان وربك يخلق ما يشاء ويختار كون يالا دي تان كون يالا مختار لا مو في ادي تان مختار فام نياري سانس مختار تي نيت موي في كون تان مختار تي يالا موي في كي تان يالا مود موي تان لوكو نيخ تي لي بين مو تان اديوما مو گن تي بيس ييب مو تان وير كور مو گن تي وير وير ييب moo tànn bisu taxawaay arafa mu gën ci booleem bëccëg yëpp tànn leen lu xadar mu gën ci guddi yëpp tànn yunant mu gën ci wàllu yàlla yëpp tànn màkka mu gën ci barab yëpp kon yàlla moo bind ay mbindeef ma pare sëq ci lu ko neex def ca lu ko neex bunt bu mujj bi mooy al ujbu fii la téere bi jeexee wal bu aaw te mooy yéem sa bopp xat xaramu araamal na ko asimaaju làmp ya mu na ma ci borom xam-xam yi salaat na suñuy sang an nabaris ñe di way leer dégg nga de almilaaju ñi ñe di way toj ñe way yombal ña xam ne dañuy jël lu jafe dafa ko bam nooy almilaaj mën na ma ci borom xam-xam yi nga xam ne lu jafe lu nekk ci ñoom lay yombe masalu dañoo misaal daalika kan Ibrahima mi ngeen làmp firi bu ne ci ngelaw nit bu yéemee boppam day mel ni nga taal sab sondeel teg ko ci kaw benn montagne wàcc ba tàqalu ko ak sondeel ba moo tere sondeel ba fay nit bu yéemee boppam sondeel la buñ taal teg ko ci kaw fay rek moo tax mu ne kan Ibrahima fir réexi mel ni sondeel làmp bu ne ci ngelaw yaa musaafinal atras yow mi uuf yow mi toogaaleeg këyit ya mooy yow mi ne ci mbiram jàng ak jàngale mooy ne téere bi jeex na hunantaha mutahirul qulubi bi qudratil ghafiri li dunubi mu ne hunaa fi intaa ci la jeexee téere bi ma doon taalif tuddee ko mutahirul qulub jeex na nag maam laaj mu ne jeex na ci kàttanal yàlla mi nga xam ne mooy jégale bàkkaar yi aama thalathin wa thalathin miyatin min baadi alfin qad madat fi l ijrati atam junni ak ñett téeméer ak ñett ci gàddaay gi moom alaaji mu ne ci laa bind téere bi lee de mille trois cent trois ci hijra ci hijratul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci la téere bi ci laa ko defar ama talatin wa talaata miyatin min baadi alfin walhamdulillahi ala intihaai mutahiri alqulubi dil baahi mu ne maa ngi sant yàlla ci téere bi ma suub di ko taalif mu tuddee ko laabal xol yi muy téere bu taaru dégg de mu ne fii la ko yàlla yemal maa ngi sant yàlla ci yàggim jeex wa innani asaluhu bi jaayi ahmada xayri alaalamin al naahi an kulli ma dakartu التقب أن كل ما ذكرته التقبل ونبى في دارين والتوصل وإنني أسأله بجاء أحمد خير العالمين الناهي عن كل ما ذكرته التقبل wan nafa fi daarayni wa tawassula mu ne maa ngi ñaan yàlla ci daraja yonentu mi moo gën ci li yàlla bind xam ne lépp lu ma tudd nii ci jikko yu safaan moom moo ko tere maa ngi ñaan yàlla ataqabbal yàlla nangul ma suma téere bi le ci njariñ ci ñaari kër yi tawassul daf naa ko jotale ko kaay ba tey ci mbooleem samay càkkuteef salla alayhi rabbuna wa wa alihi wa sahbihi wa karrama وتابعيهم على الإحسان إلى قيام الناس للديان من يلا يلا يلا جد جنتبي أكيسابام أن أنبولم سين وي توب شكرا فتال بكرك نيجي تتحو للديان يلا يلا ما يفعلون ما يوم يقوم الناس لرب العالمين مولا لا يمم لا يجي ما دام عبد متق الرحمن ميسرا للقصد والجنان فيك أبجام boo xam dafa ragal yàlla fii mi ngi dañ mu yassiran daji jàppandal lil xasdi ñeel juluwaayam wala wal jinaani kon nag téere bi fiir a jeexee ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne lépp lu ne ci njuumte ci firi mi wax joo xam ne borooma bi mu ko wax leer kese la mu ànd ak ndigal soo ko bëggee firi yow sa lépp lëndam te ci isnu dana doy war waye nak la Cheikh ibrahim waxoon ne suma mënta tëgg yonent tamit naa ak naa ak kayit di ci takal daa buñ ne ma loy def mais dama bëgg a tagg yonent te mënu mako tagg motax ma ñal daa yi di soti ci kayit gi ñu xane dama mënut ñun timit suñu sanu xaal mi ngi wax jublu won ci ludut jegeel mind mu mag mag mu baax xam leppam barke leer la ko njabot gi ñu mën ci xam dara ci lim undu téré bi ndax seen wax yépp leer la njëriñ la lépp lu ci rafet nag ñu ngi jëngu sant yàlla yàlla yàlla def ko ci misaanu xasanaatu góor gi ak mbalim am toppam ba pencam yàlla lépp lu ñu ne fakkastal ci waxin wi ci njuum te ndax ñàkk xam ñu ngi koy jégal suñu borom ñu ngi ndokkeel bu baax nag cheikh bukar ñang al katib wal bahis ci lépp itteel itteel yoo xam dëgg yàlla ci shabab bi banku baa ngi koy tiitaru ndax xam-xamam ittoo xam-xam mbooleem kii di tasaaroo woon daf nga itte ba dajale ko kon xaq la ci kenn ku ne ci ñun ñaanal ko yàlla daamu ko mooy nga dooleel ko ca la nga man ñi am ñaan nañ ko ñaanal yàlla ñi am leneen nañ ko ci jàppale ndax lii nii mi ngi wattul suñ turas bi nga xam ne buñ moy tuutoon loxoy jamono mën na koo waaye ñu ngi koy ndokkeel ci loolu kii nag di Baye Baraam mu mu doomu Baye Baraam mi nga xam tudde tuddee ko sëriñam Cheikh Ibrahim moom it dëgg yàlla mi ngi def mustaraka bu baax ci majaalu xam-xam ngi jàngale mi ngi saraxa mi ngi taalif mu wax dëgg yàlla jaar na ci lefu Baye ak maam ya Cheikh Baye ñu ngi lay ndokkeel bu baax di la wax tamit na saraxa bi euh, taalibe yi kontaan nañ ci yaa ngi tuddee Chifaal Uyub lépp loo xam ne sa maam yàbbi na ko ci lu mu way wala lu wesal yàlla na ko ko sëdd ci koy tasaare tasaare ci anam boo xam ne dina ko gërëm loo gërëm ne yàlla gërëm ñu lay gërëm dina ndokkeel di ziare xadar gépp si faama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh